Laissez-vous tenter par le goût unique et authentique de la mayonnaise Jadida. Jadida, la mayonnaise généreuse et racinée. Aïe Salon en tissu, Aïe Salon en velours, tout bas ameublement. Nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons. La Traiteur. M60, Maktoum, Amici Jan Foulard et Création, Kala Shop, Reflet d'Ébène, Mima Couture Gay, Black et Fashion by Tutu, Jaria Shop, Mifa Création. bonjour maman. Bonjour prince, ça va Ça va. yow nga si jàmm. xam nga teel sa anniversaire. Mm. Hmm? maa ngi lay ñaanal gudd fan ak wér nga màgg ba dañu teral man ak sa papa. amiin. alors dis-moi tey loo bëgg comme cadeau. non bëgg ma dara. bëggoo dara. Eh, papi yow danga ma ba léegi. papi yow yaa gën a xam ne la jëlé sa kër papa indi la sama kër c'est pour ton bien Hein ñaari xale baaxu ñu papi. ñooñu mauvaise influence lañ si yow te yow soo nekkee fii lépp la sa papa daan defal man dinaa la defal lu ko ëpp. d'ailleurs xam nga ñuy def tey on va ton anniversaire en famille xam nga damay woo ma mi Zahra mu ñëw yow si tu veux nga woo sa papa nga invité ko. waaw ah, mère parce ak boobaa suy mënul ñëw rek jarul ñu koy féete. papi bu que sans cesse dëkk maman nee naa ak papa suy mënul ñëw rek jarul ñuy féete anniversaire. gis nga dof yooyu man duñu dugg sama kër yaa ngi may dégg ñooñu bokkoo ak ñoom dara. dof yooyu ñooy samay xarit apprendre à laisser man forcé la de pour nga may fetal. Ah, Oui. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est un jour spécial pour toi. C'est l'anniversaire de papi la te xam naa ne aussi boo sañoon ci biir kër gi la koy defee tey nekk fii ndax man ak samay doom wax dëgg yàlla tuuti dama fot soxna Xadija gis nga li yëpp ay jaar-jaar la mais waroo ko def problème té c'est pas de ta faute mais si yalle ànd ak jàmm ak salaam papi dina delu ci sa kër gi. Hmm. loolu mom bo tëddee nelaw. amna ci pexé té te ci ngi liggéey bu baax a baax a baax. bu ii loolu bu amee dina ma neex. non t'inquiète pas et confiance. oui allô. allô. oui. oui bonjour Fadel. Ah, Fatima. En fait, je t'appelais à propos de papi. anniversaire ah. donc le faut insister pour que je yi ñëw. ah mais ça c'est une très bonne euh, nouvelle hein? voilà je ne la pour nous indi si possible. non non non non t'inquiète pas t'inquiète pas Je euh, man maa indi de yi <laughs> ah oui, oui oui voilà voilà. ok merci à plus tard. ok merci gentil. déjà. tu vois. Fatima mo wote léegi ni. Nena, papi mo invité ay rakam. ci anniversaire bi petit ak papa ak Kia maa ngi ni léegi nii anniversaire bi c'est ça la famille. ci du ni. tout rentre bien dans l'ordre. frère am Hein? ah. frère am petit papa ak Kia. Xalé yi nga xamné motax Fatima déplacé ñoo def pour quand? pour yóbbu ay domam. Xalé yi nga xamné ne ñoo yàq ay domam mom.

xawma ko xamuma bokkuñu jëkkër bokkuñu far yaa may dégg bu baax problème bi problème xale yi la ndax bu nekkul woon problème xale yi kon sax papi yow du fi génn xale yi demuñu un point c'est tout. ah bon da ngay jaay gaynde. yaa yee gaynde gi doon nelaw de. mais na gaynde gi continuer tëdd nag moo gën si yow. yaa ko yee de. waaw man mi bàyyam nag daa dem sa anniversaire. nuyul ma ko yaa jox sa doom après tout am nga droit dem demal. li ngay manqué mel ni ñett yu fukki di seddo sow boo amoon fu la sa doon na genn kër gi daf bi nga doon. papi papi papi. yow mon bébé. papa. j'ai eu ton papa. nee na les juments vont venir d'accord. t'es content. merci. Joyeux anniversaire, ma vie! xale bu vous mi 14 ans xanaa léegi di faire le bébé. Allez, allez, viens m'aider. Tout ça. Fadel Oui. Les cadeaux papier là, c'est de ma part. Ok. Bon. maa anniversaire ah mais vous êtes dans 10 minutes Je vais ba ndogu ba pare doo ko dem. anniversaire bi ndogu ah ok c'est bon bonsoir. maman, Ça va Ah, ça tombe bien, ton papa est là. Bonsoir. Déjà Joyeux anniversaire, mon champion. Merci. Ah, les mamans Khadija comme ah, cadeau. tu es ravissante. Merci, Fadel, c'est gentil. Mon cœur, ça va Je vais récupérer les boissons. Euh. Mais un peu pas Baba. Ah, non, nous, non. Mm. Les enfants, je vais aller aider votre maman. Mhm. Allô Oh, Abdou. Non, vous n'avez ni de ma de ma Mais vous pas pas ce logo. Ok. Fatima. et Fadel. écoute euh, Khadija. Mhm. mon bañ xale à l'anniversaire anniversaire papa ah d'accord Il n'y a pas de souci hein. de toute façon moi.. moom Fadel euh, euh, papi pour que nous c'était juste pour lui faire plaisir donc fait qu'il ne ñëwuñu Il a pas de souci. c'est gentil de ta part. merci pour la compréhension. de rien. nous ma jàppale là d'accord. Vas-y. Oui, Ça va, ma chérie T'es content hey, ah. eh, oh, Tu vas demander maintenant, hein Les années passent vite, hein Ah oui, t'as vu Ils ont grandi. Oui. <laughs> Et eh ben... Alors, mon ça va Ça va. Fadel en tout cas merci d'être venu hum, quand on a vraiment ces déplacements, bi pour euh, euh, l'anniversaire de ton petit chéri ah c'est des moments nostalgiques comme ça ah c'est vrai les moments en famille euh, ça nous a vraiment manqué <laughs> en tout cas papi a une soufflée gâteau bi ah ah Fadel itam la yow tu viens d'arriver ma besoin de papier la tamit nak, nañ jël suñu temps n'est-ce pas <laughs> c'est vrai en tout cas Masha allah table vie, c'est bien garni hein. un vrai cordon bleu hein. je l'ai préparé pour mon petit Tu t'es content tu dors princesse

li de moy coow li wax na ma fi nak luko saf ma ne wax dëgg xam nga man ak yow amuñu na boo tontu nako après mu jeex wa euro ndogu jot ma tek ndogu li mu rom ma ma anniversaire ba lay ndogo mané ko nuyul ma kon yow Khadija nga bayyi Fadel mom dong dem ci anniversaire ba. wa chéri nee anniversaire dom la jëm noo koy def. chéri ma chéri nak def nga erreur bu reuy def nga erreur bu reuy Fatima dama ko xam de gis nga <laughs> manigance yi muy tek ni bes bu soté di nga bëgg ti jot ci fadal mu lay ta Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire papi Joyeux anniversaire hip hip hip hip hip Oula Hip Oula Demeure béni et grandis en sagesse. Allez, on coupe le gâteau. loo bëgg ma takk ko ci tànku lal bi d'autant plus que nee na anniversaire doomam la jëm mënuma ci dara. doo ko takk waaye ki ko sekkal dama ko xam Fatima la capable lépp. te je très bien de quoi elle capable te Khadija bul fàttee benn affaire nag ñoom ñaar dañu am jaar-jaar te nag góor moom góor rekk la. del sama frère la waye góor la euh leen rek laa lay xamal chéri pour te rassurer bul am ben xel ñaar gis nga ko dul Fatima sax man tay yëngal sama sey